asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sama mbokki taalibe yi murid yi maa ngi leen di laabiire ngir jëmmi sëriñ bi ci saafarawu ci tawat jum mën a doon moo xam tawati docteur la tawati zahir wala tawati batin ju ci mën a doon rek sëriñ bi andil na lu xasida boo xam ne. dafa wax sax ne ku koy jàng suba ngoon da ngay am saafaraw akuk texe muy matlabu shifaai wadum alayhi fi lmasaai walsabaax wa axlisan tanal shifaan wa falaax kon sëriñ bi ko waxal boppam ku koy jàng suba ak ngoon da nga amuk wér waxtu wu ne da ngay amuk saafaraw tawat du la sonal mukk te da nga amuk texe kon xasida gu mat a bàyyi xel la te sëriñ bi moo ko bind mu leer nañ kenn wax du ko kon xasida gaa xasida gaangoo gi waye nak dafa am secret bu ma ci genné ya. ngir ko tawat ba nopi ba tawat di jaxal ko mo xam tawat ju mëna doon ci xeeti tawat yi boo ko defee yàlla ya, mën ko sutural ci dara ji sëriñ bi ak gi mu dal di safara won lolu modi day jang xasida gi ba ci ñaari bay di mu bolé len ñom ñaar mamako ko ak fuk ak ben door gi المعلم الشفاء بكي يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمل الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا ربي لي بولي boole di مثلا يا بر يا لطيف يا معافي يا من له امر يا شافي انزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له امر يا شافي انزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له امر يا شافي انزل شفاءك loolee di jang ba ma témir ak fukk ak benn cent fois bu ko défé mu aggalé khassida gi rek ba ci kamastafa fa khassida ga yam loli bu ko saxalé ab diir rek yalla dana ko may ak wér bu dee ko ko ta jang ñu jangal ko ko tifli ci ndox manan ci raay ci bu dé ki tawat moko mëna jangal bopam mu di wa jàng te di ci yene safraw diir bu gatt mu yegne sunu borom teggina tawat ja tamay na ko ak wér man wo bokki taalibe yi murid yëpp ngir